salaamaaleykum mbokku internetu Sénégal yi tey ñi ngi dalal euh, Gora Ndoye di président jeune amateur euh, wàllu làmb gi waaw Gora ñu ngi lay nuyu. waaw moom frère maa ngi lay fay vraiment di am contentement bu baax a baax def ak émission par rapport ak fi làmb ji toll. waaw léegi dañuy dañu tey moom xam naa dañuy waxtaan actualité surtout par rapport ak fee yi amoon fële ca Gambie notamment ak euh, face à face bu waroon am foofu te mu amoon mu am ay altercation ba mujj tax sax ñu mën mujj annulé annulé face à face bi tey ji noo ko jàngatee. vraiment euh, face à bi ni mu demee ni ñu ko jàngatee mooy que ni tey làmb dafa nekk benn euh, sport boo xamante ni sport buy boole la mais warul di taxale ñu gis que ne tey jii nii li nga xamante ni xew na Gambie. du lu kenn rafetlu muy ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci làmb ji vraiment ak ñi nga xamante ni tey jii ñooy suivre làmb parce que làmb nekk na comme ni ma ko waxee sport suñu sport national. tey bu ñu déplacé wee ku mel ni amaa Baldé boole ko ak Modou Lo déplacé Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy tafaatin boole leen ak neuf combats yi war a bootal ci combat Eumeu seen ak tafaatin yóbbu leen gàmbi loolu yaakaar naa fierté sénégalais yi la parce que Sénégal mooy Gambie Gambie mooy Sénégal ñu gis ne que tey promoteur bi muy Luc Nicolas ak Baye Ndiaye. seen lëkkaloo ñun waa làmb dañ ci kontaan parce que ñaari promoteur la yoo xam ni ñu miin événementiel lañ kon suñu àndee di liggéey loolu yokkute làmb la ñu gis ne que tey bi nga xamante ni déplacé wu nañ dem Gambie ñu doon xaar benn dîner de gala bu bu rafet ñaari mbëri ñëw bégee la lendemain ñu doon xaar benn signature de contrat bu bu rafet boo xamante ni tey dañ ciy jaayaale làmb seen fans yi nga xam ne gëj nañ leen gis nekk Gambie ñu amaale chance gis leen làmb yokku ci parce que tey làmb du c'est la première fois ñu déplacé ko yóbbu ko Gambie am na signature de contrat Balla Gaye Modou def nañ fi Paris def nañ fi signature Bombardier ak Modou Lo dem nañ fi Paris ak yeneen signature yoo xam dañ ko déplacé yóbbu ko bitim réew kon Gambie jaar woon na tey mbër yi wane fa un bon exemple duma sax wax mbër yi mais accompagnant mbër yi nga xamante ni ñooy topp mbër yi ñoom lañu gis tey fan yi ñu nekk benn genre phénomène boo xam ne daal lépp lu yàqu ci làmb accompagnant yi ñoo ko yàq ñooy toj làmb yi ñooy indi incident yi ñooy def lépp te loolu nag jot nañu jël ci ay mesures ba nga xamante ni tey jii nii làmb jii ñu jëm muy le 5 novembre diggante Modou ak Ama Baldé mu jug mu ñu dugg si ci jàmm mu jeex ñu dellu si jàmm. waaw tension bi bëri na tension bi gis nañ ko keroog ci gàll bi bëri na lool. Mhm. notamment ak accompagnant yi. Mhm. sànnante xeer yeeg ñoom mhm. seen. Ah, léegi yow loolu yan yan solution ngay proposer à que affaire bi gën a dal pour que ñu jël yan mesure lañ mën a jël pour que ba affaire bi mu gën a mën a dal daal. waaw mesure yi ñu war a jël pour mu gën a dal yaakaar naa ne bokk na ci sécurité parce que tey yaakaar naa ñaari mbëri ku ne xam na leen xam seen ginnaaw te Pikine ak Parcelles dafa nekk benn bi boo xam ne dafa yàgg mun naa wax ni ci ay match nawetaan la démarré mu yegg si ba ci làmb kon tey jii nii bu ñu nekkee ñaari gox yoo xam ni dañu gox yu populaire la ñaari mbër yi aussi nekk ay mbër yu populaire soo boolee seen combat war nga ci jël ay mesures mesure d'accompagnement accompagnement boo xamante ni tey yaakaar naa ni képp ku fa ñëw di nga si jàmm ñibbi si jàmm parce que tey amateurs yi muy ñu nekk Sénégal ak ñu nekk si diaspora bi tey bu dee lamb dañ ko jaay PPV diaspora bi dañuy dagg seen ay code bu dee amateur dañuy bàyyi seen ay yiite taal seen ay oto sol seen lu rafet ñëw toog seetaan léegi ñooñu nag da nga leen war a teg ci condition yu baax tey jii li ñuy wax le promoteur mooy que ni tey lépp lu mën ci sécurité na ko def ñun jàpp nañ ne lii war na mën a tey dajale préfet de Dakar war na mën a dajale tey jii ndaw ministre de l' war na mën a dajale tey jii nii acteuru làmb yi muy le CNG ak ñaari ménage mbër yi même ñi nga xamante ni ñooy président supporters yi nga xamante ni ñooy ñaari mbëri ñu dajaloo toog waxtaan xool tey jii ak le promoteur nan la ñuy def ba indi tey jii jàmm ci diggante ñaari mbër yi parce que tey diggante Parcelles ak Pikine dafa jegeyantoo jegeyantoo boo xamante ni dara lu ñaaw xaju fi ndax tey jii nii Parcelles mooy Pikine Pikine mooy Parcelles kon war nañ mën a bëre làmb ji ci jàmm ñaari mbër yi bëree remplir seen contrat parce que combat bi dafa yàgg bientôt mu def cinq ans kon tey jot na ñaari mbëri ku nekk libéré wu dem seeti leneen comprendre nga mais liñ ciy gën a wax daal le promoteur mooy la mesure de sécurité nañ ko jël parce que tamit amateurs yi duñu dagg seen ay billets ñëw ba ci biir làmb ji làmb ji toj ñu perte parce que dal nañ ci ay làmb yu bari te gis nañ ni tey làmb ji nii toll na foo xamante ni tey war nañ ko mën a gérer ba nga xamante ni ñun dinañ ñëw seetaan mu jeex ñu ñibbi parce que tamit gis nañ ne que ni boo xoolee tension mu commencé di ndànk-ndànk nit ñi ñu ngi génn de gauche à droite ku nekk di communiquer mais lépp jàmm ci la xaj ci la lépp xaj te yàggul dara la président Macky Sall recevoir na ak lu làmb vraiment digg yim diggante woon ak ñun yëpp def na ko muy emploi bi muy li nga xamante ne mooy santé bi muy li nga xamante ne mooy habitat yi comprendre nga kon tey jii nii muy li nga xamante ni mooy accompagnement promoteur yi muy benn benn benn benn benn benn financement boo xamante ni def na cinq 500 millions pour accompagner ko promoteurs yi yooyu yëpp tey teg na ko kon tey moom mu ngi jàppale làmb tabaxal ñu national nationale 32 milliards léegi loolu nag li koy accompagner mooy yar ak teggin ak discipline